ñëpp di baal ñëpp ax di ñaan ngeen baal ma ax euh, yal na yàlla boole yal na si yàlla jëlee lii nga xam ne maanaam mooy jàngoro bi tey ñoom lu xam ne lu kéemaane lu yàq lu bari bëri si doomu aadama yi euh, si loolu ñun en tant que mouvement And Tank Sonk Sénégal dañu am vraiment Thiès moo ñu ñor Thiès ak Sénégal bi yëpp bien que c'est un national euh, fàtt naa ko sax li ñu def fii moom la ñu def à Dakar aussi ak Guédiawaye fu nekk dañ koy def foofu si loolu tamit maa ngi sant bu baax a baax ñii nga xam ne maanaam ñoom ñooy euh, téeri nekk biir Thiès di leen gërëm bu baax a baax de passage suñu leen di kontaan si ñoom man bi ma amee xalaat bi ma ne man de du ma taxaw di seetaan sama population am ay jafe-jafe di feebar man yàlla def na les moyens sont limités ma ne man de li may xalaat mooy il faut ma confectionner ay masques pour jàppale sama askan bi si loolu. ma décidé incha allah rabbi bu ma waxtaan ak ñoom ma ne leen man de amoon naa sama benn xarit bu xam ne société la yore neen na ma président mun naa la defal ay masque ay ay plus de cinquante cinq masques ma ne ko man de dama bëgg yëpp lu may defal rek ma defe ko fii nga xam ne fii laa cosaan fii laa dëkk mooy Thiès mhm. si loolu bu mu amee ma dajale ay masque ma dajale ay coupon tissu mhm. yëpp ay tout ce qui est première laa mun a wax ma convoqué leen fii ñun ma vraiment ñëw wuy si ma comme xam ngeen léegi daje dañ koy tere ñoom ñoom seen bopp représenté ñoom ñu ñuus ma bi ma wuysee ma waxtaan ak ñoom ma ne man de léegi sama jëf moo nekk nii dama bëgg ngeen coffre am a jënd parce que tey na fu mu xam ne bu ñu xëyee suba macha allah yan yàlla xam doy na léegi loolu man laa décidé man ne la man de bëgg naa topp lu mot parce que euh, maanaam juróom benn junni masque bëgg naa ko si loolu ne ma président vraiment yow li nga bëgg dañu ci ànd ma ne leen man aussi depuis problème amee ba léegi gis naa ne yéen da ngeen toog liggéeyu leen mhm. man aussi itamit il faut mu ñëw indi sama ndimbal loolu yi nag bëriwul sant yàlla parce que yàlla moom fu mu nekk rek ku ko nekk rek mu nekkal la mhm. ngi sant yàlla bu baax a baax si loolu bu amee bu ma waxtaanee ñoom ba pare ñoom seen bopp bi ñu waxtaanee ba jubóo si kàddu parce que ñu aussi doo ko gaañ ñoom seen bopp dañu sacrifié wu mhm. ñetti fan laa leen jox coupon yi ñetti fan vraiment indil ma lu mot ay junni ñetti junni masque jox nañ ma ko am na yeneen saa des parce que du rek laa doon testé. xool na aussi yeneen zone yu xam ne du foofu salaay bon li may far yeneen zone yu xam ne sax bokkul si zone nord. jox naa leen ay kii ñoom aussi maanaam di remercier bu baax a baax. da fekk aussi ñoom tamit ñi am ay commandes yoo xam ne dañ ko livré à Dakar ni ma yéen ñu jiitu yow ñuy defar ba pare soog a jënd waa Dakar donc si loolu tamit vraiment sant naa leen bu baax di leen gërëm si taxawaay bi. wax xam nga yëpp loxo kii nga xam ne maanaam moom la fi yàlla teg mooy président Macky Sall. Euh, ñu ngi si décision bi xam ne jël na ko parce que tey porter masque tey obligation la parce moom moo rek moom rek mooy remède mooy faj mooy faj bi jàngoro bi set aussi tamit parce set moom li nga fa wax si jaamu yàlla boo donc toujours aussi tamit nit ñi ñaan population bi tamit nañu nañu toujours aussi nañu toog seen kër nañu toog seen kër nañu respecter les consignes c'est important lii am na solo lool bu ñu ko defee rek yàlla danañu sutural masque bi moom maintenant c'est obligation parce donc nit ñuy sant bu baax di ñaan vraiment ñit euh, yi nañu respecté ku ñi nga xam ne maanaam moom la président wax ñi nga xam ne maanaam moom la sa ministre am wax vraiment di sant ñëpp maa ne lool euh, jël ba yàlla def na sax même boo xoolee kenn bon waat naa ko en euh, am solo la mhm. parce que yaakaar naa ni problème de la parce que léegi sama bureau rek maa ngi waxtaan ak xam nañ ko si wàllu taxawaam si wàllu islam chaque année ren rek ñu organiser ay concours alquran si mondial Euh, tey macha allah maa ngi koy nuyu de passage administration des imams imam demaat ñëpp ñu ko jiitu ak sëriñ Dakar sëriñ Thiès maa ngi lay bu baax a baax. Mm. ak ñëpp ñu fi tey seen jege ñëpp ak ñi ma ñëpp ak mm. lii problème de communication rek la. il faut aussi tamit ñun suñu bopp tamit ñuy waxtaan ak sëriñ ñi danger bi xam ne maanaam am na fi parce que lii bu ñu si dëgër bopp day gën a yokk parce que boo xoolee taay mu gën a yokk. démb rek ñun ñu ngi si affaire de temps réel HCC wax ni encore yeneen cas am na ko. Mhm. ku ko am mooy benn taalibe moo ko am. Mhm. donc loolu aussi war nañ ci gën a sensibiliser ñu en tant que ñu yore mouvement yi di jàppale son excellence président Macky Sall en même temps aussi tamit les acteurs de développement yëpp même les artistes war nañu gën a sensibiliser la population sensibiliser ñëpp bu ñu ko defee rek dinañu dégg loolu dina fi jóge. ñu tudd Makhtar Diène di secrétaire général amical des tailleurs mhm. ñoo ko defar ñoo ko ñoo ko confectionné jox ko président ñëw commandé ko si ñun ñu tailleur yi nekk zone nord yëpp commencé jaxaw ba mi dina fa quoi ñoo ko defal waaw. ok masque yi tissu en coton la dañuy wut popeline bi mooy coton bu diis bi daal benn coton boo xam ne dafay neex si bakkan ñu jiitalee doublé ko ko def ko ci biir pour que ki ko sol mu bañ ko sonal aussi mën na ko takk suba ba ngoon. aussi bu ñu waxee président am na ñoo xam ne tamit azoté la mais dafa wax ni moom nit ki boo koy may da koy may loo xam ne comme ki ngay may dooleem jotewul ginnaaw da koy may loo xam ne à chaque fois dina ko mën a utiliser bu paree mu fóotaat ko bu ci amee ñaar mu fóotaat ko mu solaat ko moo tax mu jël tissu boo xam ne tissu qualité la ñu defaree ko ko quoi. nga ko takk bu tilimee après nga fóot ko boo paree nga passé ko kii dañ après nga mën koo takkaat di ko utiliser bu lu bari daal. lii moom di ci kontaan bu baax a baax parce que man dama koy wax sax man dama ni woon ñun téyeri ne zone nord yëpp. su président deful woon lii ñun dinañ woo presse bi ñun ñu defal ko suñu bopp parce que dafa am foo xam ne mën naa ne da nga naan ki la jëlee ci lëndëm yóbbu la ci leer mm-hmm. parce que tey bi lii di xew ku ne xam na ni situation dëkk bi ni demee woon tailleur ku ne xam na ni lan la am ngénte yi ceet di gàmm yi ak événement te premier arrêté bi njëkk a jóg mooy bu kenn demati benn événement kon tailleur yi dañuy toog ñun noté nañ 15 jours wala 20 jours yoo xam ne da ngay xëy des fois sax dem sa atelier bu dee ñu ne ñu tëj ko mais bi mu amee initiative yi man li tax mu marqué ma mooy lii yombul mënoon na xool rek benn euh, entreprise bu mag mu def ko Thiès am na fi Dakar gam nekk bëri na fa mais dafa xool ñun téye yi nga xam ne jotuñu suñu loxo jotul suñu ginnaaw mu wooñu ma ne jour bi ñu ñëwee mu jox ñu avance bi tey bépp téer bu nekk zone nord laal ci masque yi yëg na ni yow sa koor mu ngi doo a commencé parce que tey ba nga demee def nga si ndogu def nga ci leneen leneen mm-hmm. def ay dépenses yu bëri loolu nag geste bu noble la parce que nag bëri na ñoo xam ne ñu ngi fi te defu ko te aussi bi mu ñëwee ci prix bi moom suñu partenaire la mënoon nañu koo defal ñun tamit ñu ñu def ko ñu def ko ndax dañuy ndax ñun avant muy ñëw commencé woon nañ ñëw ay mas maye jëndoon nañ ay saabu joxe ci maire bi doon ànd ci xeex bi ndax comme ni ñu koy waxee rek xeex bi moom eh, sal yàlla moom moo wax ni wattaqu fitnatan laa tusiibanna lladiina zalamu minkum xaassa nee na moytu leen fitna ndax fitna bu ñëwee du yem ci ñi nga xam ne ci ñoom la yem kon ñun a ah, ay du yem ci bokk borom loolu moo waral ñu def la ñu waral mais bi mu ñëwee wax ñu ko def ni xool leen prix bi leen arrangé wax dëgg yàlla mu joxal ñu ko prix bu baax boo xam ne ñun ñëpp gis nañ seen bopp mm-hmm. kon loolu geste boobu ñu ko ci saluer bu baax a baax a baax di ko ci jaajëfal wax dëgg yàlla di ñaan yàlla rek affaire lu muy lépp lu muy yóotu mu gën a dem ci kanam eh, moom mooy tey bu tey bu fekkoon ñu bëri ñu mel ni Habib am na par exemple te xam nga tey boo amoon benn somme boo xam ne dañ la ko fay ci masque yi da mën a jël sa bénéfice yow defaraat ci yeneen yow don yi dafay yomb ku ñëw ndax comme dañ benn Cees waa bu ne war naa mën a am masque te tailleur yi rek ñoom ñoo ci mën a jàpp tey bu du woon tailleur lii dina jafe parce que tailleur yi tamit ñoom nañ jàpp ni ñoom métier mi ñu yor buñ ci xool xaalis boobu ëpp mais métier sutura la ñoom dañuy suturaal ay nit ndax kay tey fii bu dul woon tailleur ñu ñu fi nekk ñëpp sunu sunu sunu taxawaay bi du rafet kon tailleur ni muy suturaalee ni moom bu gëmee loolu xam ne mu ngi jaamu yàlla noonu la ko yàlla di suturaalee kon na tailleur bu nekk fexe ba jël ci dooleem donte sans masque la nga defar ko may ko population bi su boobaa yiw bu Habib am yow mën ngaa am bu toll noonu quoi mm-hmm. ngay def bañ cee def rek ci weeru koor comme ni nga ko waxee nga profité ci weer wi mooy weeru mag wi nga xam ne weeru yàlla la fexe ba Cees waa bu nekk ah am am benn masque daal mm-hmm. naa loolu laa doon kii waaw ñu ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala ñu boole ci jotaay bi muy jotaayu dimbalante jotaayu yiw jotaayu aar sa bopp aar saw askan ndax xam nga ni eh, lislaam dafa ñun alwiqaayatu xayru min al-ilaaj fagaru moo gën faju eh, te loolu yaakaar naa eh, nation yëpp dëppoo nañ ci kon nag suñu mbokk Habib nga xam ne nag daaw rek ñu ngi woon fii ci penc mi mu fi doon def conférence bu mag mm-hmm. boole ko woo kuréelu jigéen ñi ci diiwaanu Thiès Nord gépp doon yëkkati ay xéewal leen jox ci weeru koor gi euh, mu mel ni loolu def na ko ren ci beneen façon mooy jokkoog naa ñoom seen dëkkuwaay ndax comme ni ngeen ko xamee dañuy euh, tere lépp loo xam ne dafay dajal ay mbooloo euh, kon nag mu jublu ci beneen deuxième phase muy phase bu am solo mooy ginnaaw bi àddina bi yëpp dëppoo ni feebar bi dafay tasaaroo ci jaww ji di tasaaroo ci ci noyyi si diggante beneen doomu aadama mu xalaat lii muy lu rafet muy fexe ba aar doom bokk ci ñuy aadama yi fexe ba gox bi mu dëkk mooy famille bu ci nekk am lu mat 15 masques ndax euh, junj na ko léegi ci kàddoom mooy masque bi li muy néew néew njëkk am na ñoo xam ne loolu dana di si ñoom kon nag moom bu ko yàlla dimbalee mu am tawfiixu euh, xalaat ni euh, jullit mbokk mooy jullit ba ci desit suñu borom subhanahu wa taala moo ñu digal ñu wa ta'aawanu alal birri wa lépp lu yiw na ngeen ci dimbalante mu am inspiration boobu taxaw ci ñun en tant que ay nitu diine en tant que doomu daara en tant que nitu lislaam en tant que ab taalibe suñ ci woowee dañ ci sawar ngir xamal ko ni lii nga def yiw la te yonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni ak daalu àlal xëyri ka faa'ilihi ku joxoñ lu baax yàq ko jëf yéen a yem kon ñun ñu fi teew ñëpp am nañ yiw gi ndax yéene nañ ko li mu def te moom li mu ci def li ci jublu rek mooy aar doomu aadama yi ndax xam nga ni li ëpp na ci këram ëpp na ci ëpp na ci ëpp na ci famem kon xalaat na ñeneen ay junni junni doomu aadama yoo xam ne mën na ci jëriñoo kon nag dañ koy féliciter di ko encourager di ci profiter aussi di sant euh, son excellence président ci sensibilisation bi nga xam ne saa su ne mi ngi koy def ci askan wi ngir nit ñi gën a aaru gën a mucc ba Sénégal yàlla génne ko ci asma bi muy crise bi ndax xam ngeen ni ni ma koy waxee saa su ne eh, xew-xew bi bu njëkkee woon ci Afrique moom daf ñuy raatale yóbbu. kon nag yërmande yàlla lalu na ci ba mu njëkkee faneen ndax xam ngeen tubaab ak seen xarañ ak seen i possibilité ak seen i moyens eh, ak la fa dee ci ay junni junni doomu aadama tey ji mu nee banaa Sénégal juróom-ñeenti nit a faatu loolu tawfiq suñu borom la yàlla na yem foofu te yàlla génne ni Sénégal wa salaamu alaykum wa rahmatullah comme vous le savez après c'est-à-dire 2 de sucre, des, des, centaines de cartons de, de et de savon. Aujourd'hui, me voilà en présent avec des tailleurs locaux pour d'abord utiliser l'expertise local je veux dire. Euh, je dirais pas de CDT de la zone nord, il y aura même de la zone est, de la zone ouest. Bon, j'ai mobilisé pratiquement de euh, des, plus de 1500 tailleurs pour confectionner des masques pour la population. Je dis qu'aujourd'hui, les masques sont devenus primordiaux. Comme vous le savez, euh, nous, notre objectif c'est quoi C'est de délivrer 30 000 masques. Aujourd'hui, on a reçu 15 000 masques présents pour distribuer à la population. Ces 15 000 masques, c'est la jeunesse du mouvement de Sénégal. fait pratiquement toutes les jeunes du mouvement, comme vous le voyez derrière moi. C'est des vraiment machallah qui sont très braves, qui vont m'accompagner à distribuer les masques de la population. Notre objectif, c'est quoi C'est de faire chaque maison 15 masques. Parce que aussi, vous savez que les masques, ce n'est pas à la porte de tout le monde. C'est pour ça, nous, en tant que mouvement en du Sénégal, un mouvement qui est toujours présent de la population. toujours là pour la C'est pour ça aujourd'hui on a décidé présent de faire ce don de masque. Comme vous le savez, ça je suis là de dire parce que moi euh, j'ai des amis, j'ai des partenaires. Il y a même un ami, c'est un industriel, il m'avait proposé de me faire des masques. Non. Lui, en fait, vraiment, j'ai remis ce de passage. Il m'a remis des coupons. Avec ces coupons, j'ai complété des jeunes qui sont là, des jeunes prévoyants. Vous voyez ça, c'est qui est là. C'est En même temps aussi, j'ai remercié, il y a qui devaient venir. Malheureusement, aujourd'hui, le temps ne le permet pas parce qu'il y avait des commandes d'ailleurs. Hmm. Ils m'ont d'abord dit que président, vraiment, aujourd'hui, on, on excuse. Bon, je que ça, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, je tiens aussi à remercier ces, ces vaillanteurs qui sont là présents, de la zone nord aussi, ils sont tous là présents, qui font un extraordinaire. Pour vous dire Ils m'ont remis ça hier, des milliers, milliers, plus de 15 000 masques présents. Donc je tiens vraiment à le remercier présent. Toujours je disais que je pense qu'aujourd'hui, tout ça, nous le ferons dans le compte du président public, son ensemble que nous accompagnons. Euh, je pense qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Chacun doit prendre ses responsabilités. Je l'ai même dit à mes militants, restez vous. Et puis en passage, je salue beaucoup la jeunesse du mouvement Sénégal. Ils sont en train de faire des travaux. Ça dans le réseau dans les réseaux sociaux. Donc euh, aujourd'hui, je pense que la seule solution, c'est de quoi euh, à, à mes sens, j'ai salué de passage le président public, en même temps surtout le de l'Intérieur, qui a pris des mesures vraiment, des mesures à saluer, salutaires concernant le port des pasques est une obligation. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, la seule solution, le seul remède, c'est quoi C'est d'abord la salubrité, tout ce qui contribue de la santé de l'individu. C'est d'abord aussi de porter des masques à tout moment. Je pense que si on le fait, Inch'Allah,